Eh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen sama mbokki groupe bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaara xam naa damay gàttal rek dugg ci tont yi nga xam yi nga xam ni eh, al imam Moustapha moo ko laaj te waxoon ne te man léegi laa ko déglu sax léegi léegi laa ko déglu léegi ci 9h30 laa ko déglu 9h30 maanaam 21h30 laa ko déglu. ngir dama ñàkkoon jot tey ajuma dafa xat ma dégg mu wax ne bu ñu xaaree ba tey ci ngoon gën tontuwul ñu bax sëñ bi moom mu dugg xaw ma nag bu dee kenn tontu na waaye yaakaar naa kenn tontuwul moo tax ba ci joxe ma nit sama xam-xam moo tax du ma guddal du ma guddal nuyoo bi waaye maa ngi ñaanal ñëpp di sàkku ñaan nag waaw maa ngi ñëpp di sàkku ñaan nag ñaan xew-xew bi ñuy jublu te mooy gàmm gi ku nekk fa koy defee rek yal na fay la fa lu ëpp la nga daan am at mu jot ndax xam nga yonent bi moom foo ko màggalee baax na yonent bi moom foo ko màggalee rek baax na donte na nga xam ne mbooloo mbooloo yërmande la mbooloo yërmande la waaye foo ko defee rek baax na tabaarakallaahu yal nañ ko yàgg teewal tal ko lépp lu ci waay aajo xoor yéen ko yàlla yombal ngir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gisal ci nag wér ak wérle ak jàmm yéen yàlla defal ñu ko jaani bi na Muhammad bu ko defee bon damay tontu par par ni ko ni ko laajee par par par masala bi mu njëkk laaj mooy ki nga xam ni dafa ñu ci julli fekk imaam am rakka bu njëkk mu ànd ak imaam rakkaw ñaareel bi imaam toog taaya ñu dugg ñetteel bi imam di jàng Faatiha pareegul moom mbaru ñëwal ko mu génn dem di foppi deret ji ñëw fekk imam ca ñeenteel ba ko ñeenteel bi raw na ko mu ànd ak imam ñeenteel bi imam am ñeenteelam taaye sëlmal moom war a fay bu njëkk bi ak bu ñetteel bi mu ne kook nu julleem ngay demee waa xam nga kooku liñ jàngoon bu yàggul mooy day jàpp ne imaam muy imaam ba tey bu dee ci ibnu xaasim la day teg imaam bët day teg imaam bët jàpp ne ko yaay suma imaam kon duñu xool ne bale ñeenteelu imam la dañu xool ne moom lam la waaw day jàpp ne bale lam la bu dee mu ñeenteelu di jàpp moom moom lam la comme lam la nag comme dàpp day jàpp ne ñetteelam bi imaam a ngi ci kanamam te imaam a ngi ci kanamam ndax bu bariwul doon day ànd ak kon di jàpp ne ñetteelam boobu ba tey imaam moo taxaw kanamam moo ko jiiti ñetteel bi kon de indi ñetteel ba muy xaddamal bina wa aqaral xaddaa xaddamal bina day njëkkee jokk gi yéexee fay gi kon jokk gi mooy ñetteel bi lay indi par que day jàpp ne imaam boobu mooy ñetteelam sax ibnu xaasim nag ibnu xaasim gannaaw ñaar la am donte ñeenteel la ci imaam moom ñaar la ci moom te ñaar ñett ci topp kon ñetteel bi mooy binaa mooy jokk bi te indi ñetteel bi ba indi ñetteel bi moom ñetteelam la te ñetteelu imaam la woon dafa toog taaya déedéet bu jógaatee nag indi bañ ko rawee woon muy xaddaaba jàng ci fàtteeg saar toog taaya sërmal bu dee ci ibnu xaasim noonu lay defee bu ci suu nag suu noonu moo gën simple kon bu imaam sërmalee day indi bañ ko ñekk rawee woon rek mu jàng ci fàtte ak saar ñu telam la te mooy bu moo doon njëlbeenu imam ba imam toogu foofu moom it du fa toog bu paree jógaat indi nag bi nga xam ne mooy ñett ñetteel bi moom mooy doon ñeenteelam bu toog taaye kon kooku masala boobu noonu lay demee dama koy tontu par masala par par par masala incha allah ñeenteel masala bi mooy ndaw si nga xam ni chrétien la baayam chrétien la yaayam chrétien la wante ki ko bëgg nag pour def ko jabar kooku moom jullit la kon ndaw si kan moo koy maye kon kan mooy maye ndaw si imam musa Fall ne loolu lay laajte imam jigéen kilifaam moo koy maye jigéen kilifaam moo koy maye ñoom gëm nañ yàlla yeneen bi lañ gëmul kon ñoom bu ñu mayee ñoom ñooy maye seen njaboot xanaa ñu d'accord ñëw indi ko ci jullit ñi bàyyile ko keneen waa tant que loolu amul bàyyi koy maye wala ku ko bàyyi ji bàyyile bu mayee ko bu mayee ko islam loolu d'accord islam loolu d'accord dëggo islam nee na yéefar bi nga xam ne dañ ko may dañ ko maye mu tuub bu tuubee seen seen yu xaraam yi dañ ko cay bàyyi moo xam jant jant ne woon sàngara donc moo xam ne jant ca noonu mbaam xuux mais kenn du waxaan ne nañ ko takkaat joxe cangu dagan xale loolu la jàngale loolu jàngale kon ñoom ñoo koy maye te xam nga may maye yomb na maye mooy ñaan naa la may naa la rek jàng faatiha bi ba am na bi solo mais du ju farata ponk sëy yi jàng faatiha du ju farata ponk sëy yi jul bi ju farata ponk sëy yi mooy ñaan naa la may naa la loolu la ponk sëy boobu moo ci moo ci moo ci ëpp important na can ngi am na kilifa am mooy waliyu bi na ndatu féex nga xam ne kenn newut ca kenn newut ca te nekku ci sëy bu yàqu nekku ci nekku ci edda nekku ci edda kon jëkkër ji baay ji seen diggante lu fa xew mooy lan ñaan naa la may naa la ba tey seede seede du wut ci farata tey yow mën nga di dox ak sa jërbaat bu ñaalas doom nga mee ko ci yoon wi bu defee nag bala muy xaraf nag duggu dem yoonu njëkk nga doog wuti seede nag kon kay gannaaw yéefar bi su muy may jullit la jullit bi nag nañ ne ko jullit bi ne ñaan naa la rek mu ne ko may naa la parce que islam d'accord na ñun ñu takk seen jigéen ñi kon dagan na islam ko daganal tabarak bu mooy tontu ñeenteel beneen bi mooy ñetteelu masala bi mooy ci tënk rek mu gaaw euh, ndaw si doon edda bu eddaam des trente minutes jëkkëram faatu ndax eddaam ba day jeex wala eddaam ba du jeex ndaw suuf ndaw soosu eddaam ba jeexul eddaam ba jeexul te eddaam ba comme jeexul te fasim fasim fay la mooy li nga wax mënoon nañu ko defaraat kon dafay doon na jëkkëram doo sax jeexul dafay doon na jëkkëram eddaam ba jeexul déedéet jeexul de xam nga e-, edd boo xam ne lay tax mu jeex Euh, jëkkër ji faatu mooy tax mu jeex edda bu jëkkër ji faatu tax mu jeex bariwul edd boo xam ne am doomay tax mu jeex boobu la islam jàngale edd bu fekkee jeexagul jëkkër ji faatu ndaw si dafay sos téñ ji day téñ day sos téñ ji bu doy waan nga wax ndaw sos day am problème ndaw si eddaam ba jeexut parce que 30 mille yooyu ndaw si 30 mille yooyu le mu ngi edda bi li preuve bi mooy day doon jëkkër ji kon jabar moo tax kon day tëñ ji ndaw si ndaw si dafa am benn masala boo xam ne sax laaloo ko boobu mooy masala bi nag ndaw si tey lim lim edda yëpp day màbb day tàmbaliwaat day tëñ moom. parce que jëkkëram a dee kon dafay tënji dafay tënji fekkoon na nga xam ne 30 mille yi jeexoon na tàkk nag idda ba jeex na kon du tënjante mais kii dafay tënj waaye dafay doon kon loolu mooy masal bi fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiina dafay doon na nga xam ni dafa ëmboon looy masala bi fekkoon dafa ëmboon bi mu ëmbee yàlla dogal muy edda muy edda bu muy edda am ñetti fan rek ñeenti fan rek am doom edda ba jeex na edda ba jeex na wante fekkoon dañ ko fase ndeke mu ngi ci ñetteelu weer fekk amul doom eddaam ba jeexul fekk eddaam amul doom eddaam ba jeexul bu tey masal bi nga joxe nii fekkoon dafa ëmboon ndaw si di am doom pareegul jëkkër ji faatu ndaw si dafay doon dafay doon jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, beneen laaj bi nga xam ne imaam laaj na ko mooy imaam dafay julli ànd ak mbooloo bu amee mbooloo mu ànd ak di julli dem ba am ñaar rakka yàlla dogal ñeneen ñëw wala ñeneen ñaar ñëw bi ñëwee ñoom am ngànt bëgg a ñoddi ku ko wuutu ci julli gi ba mu ñoddi nag mu ñoddi ñi nga xam ne dañoo ñëwee mu ñoddi ci kenn ñëwees moo xam ñaar la wala ñett waa ñi mujj ñëw nga xam ne amaguñ ci julli gi ñooñ ci la ñoddi kenn ci la ñoddi kenn nu muy demee nu muy demee julli ga bu dee nga xam ne kim ñoddi ba mu koy ñoddi fekk na du ko ba siggi ci rakk ba mu ne ci rakk ba mu nekk bu dee ba mu koy ñoddi rakk ba mu nekk du ko wut ba siggi kon dafay taxaw di jàng faatiha joosu ci gannaawam ñoddi kenn ci ñu mujj ñëw kon kim ñoddi dafay dem ci kanam bu dee amoon na ñaar mu mottali ñaari des bu ñeenti rakkaa la mu jàng ci bu ne Fatiha dong bu timis la mu jàng benn rakka jàng ci Fatiha léegi moom bu ko defee dafay toog taaya bu toogee taaya ñi nga xam ne ñoo àndoon imam bi ñoom ñoo ko rawee ñaar rakka ñoo àndoon imam bi bu njëkk bi ñoo ko rawee ñaar rakka léegi bu mottali ñaar rakka yi des wala benn rakk bi bu waaw bu mottali ñaar rakka yi des bu mottali ñaar yi des ci julli gi ñi àndoon imam bi dañuy toog kaar ko ndaxte mu wutu imam te ko mu wutu imam na mooy imam duñ ko njëkk sërmal mukk ba seen dafa yàqu ku ñàndoon imam bi dañuy toog xaar ko ki nag moom nag wala ñi nag moom ñoom dañuy toog ndax kenn du sërmaloon door ak sa imam déedéet dañuy toog ba fay ñaar rakk yiñ ko rawee xoon sëlmal ñam fa àndoon ak bu njëkk ba sëlmal moo ñi mu àndatoon ñoom doog a jog fay ñaar rakk yi nga xam ne moom la ne imaam bu njëkk ba reyoon noonu lay def dégg nga masala bi imaam bu ñaareel bi buy fay ñaar rakk yi ñu ko rawee ñaan doon imaam bi bu njëkk ba dañ ko toog di ko nekk bu sëlmalee ñu ngi doog a sëlmal ñaan doon moom bi dañuy toog di ko xaar bu sëlmalee ñu doog a jóg fay ñaar rakk yi ñu la reyoon ñoom ñëpp ñaan ak imaam bu ñaareel bi ñaanal imaam bu njëkk bi buñ sërmalee nag ngir ne ñoom julli imaam bu njëkk bu mën na seen julli yàqu ñaanal imaam bu ñaareel bi buñ fayee ànd imaam bu ñaareel bi fay seen julli yàqu na kon ñoom ñëppay toog ci tënk ñoom ñëppay toog moo tax xalil ne wa sa li salaamihi almasbuuqu dégg nga wa jalasa toog na li salaamihi ñeel ba ca sërmalu imaam bu ñaareel bi kan mooy toog mu ne almasbuuq kañ jiitoon te maa nekk imam bu ñaareel bi almasbuuq kañ jiitu woon kañ jiitu mu ne kaan su bi xam ne ko jiitu xuwa moom imam bi nga xam ne mooy mu ngi wutal bi mu wutal kaan su ko xuwa bu fekkee moom lañ jiitu jiital te moom dañ ko jiitu kon ñaaxandoon imam bu njëkk bi dañ koy xaar kaan su ko xuwa kon ñépp koy xaar kon beneen masala baa ngi noonu mooy masala bu ñaareel bi noonu lay demee masala bu juróomeel bi mooy masala bi fi jaaroon la wax te mooy fase mag ji tey tey tey takk rakk ji tey tey tey ndax loolu amul ci fase moo xam ne mën na nekk man na bala may tontu damay wax alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi rabil alamina alhamdulilahi rabil alamina duggaat mu mel ni bu ma duggaatee damay indi daaj mu far bàyyi keroog keroog biir booba ma far ma far noppi far ndekkee imam Moussa moom far na ko laaj fasel moomu am na kay am na ñaari fasel sax am na fasem batt ku fase jigéen fasem batt maanaam ki mu neex dégg ku fase jigéen fasem batt saw ji dagan na nga takkaa rakk ji ci ëdd bi dagan na dagan na fas jigéen feseem ba te saw ji daga na nga takkaa rakk ji ci yedd bi ku fas jigéen fas jigéen feseem ba bañ na soxlaa mooy fas moo xam ne du nekk boo saw mais dangay ngay lebetaat da ngay demaat lebetaat kon daga na nga takkaa rakk ji donte edda edda ba jeexul yooyu la waaye bu dee na fasam fayli la fasam fayli foog nga xaar ba edda bi jeex parce que fi mu toll nii sa jabar la mais ñaañe la ñoom doo dootuñ sa jabar ñoom mukk dootuñ sa jabar mais kii moom fi toll nii sa jabar bu la neexee ko léegi léegi léegi irsan mais patin ba da saw ji mënatoo ko jëli façon wax da ngay lebetaat mënatoo ko jëli kon foofu euh, façon yooyu la fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu sunu xaaliqina fa tabaarakallaahu imaam jërëjëf jërëjëfati jërëjëfati jërëjëfati laaj nga lu am solo laaj nga yu am solo yu am solo jërëjëf laaj ngi yu am solo fa tabaarakallaahu sunu xaaliqina jërëjëf jërëjëf xam nga boo gisee sax ñu naan euh, euh, du ko mën takkaat ndax bu deexee daf koy donn façon fay la donte kële sax mën na doon itam bu jeexagul waaye xam nga jàng nañ ci xalil ñëwee la jigéen joo xam ne dafa solo ba jekk solo ba jekk jógee ci kër jëkkëram dem doon jëkkër jàmbur kon doon bi nga ko doon du ju dara xel jàngale na ko jigéen ju sangu ba set tàkkusaanu solo ba jekk jógee ci kër jëkkëram damuy sëy bàyyi fa doomam ya dem doon na jëkkëri jàmbur mu ngi ci xal yi tabarakallah kon imata imam jërë ngeen jëf tontu yaa ngi noonu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh